waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision Walfadjri ñoo ngi am mbégte di dëkk ak ci benn jataay bu spécial jataay bu nga xamante ne daanaka mën nañu wax ne pour euh, indi ay réaction ci jataay bu ko jiitu woon di grand format di émission bu nga xamante ne def nañ ko fële ca kër Ahmed Khalifa Niass euh, tey ji nag lañ bëgg a ñëw bëgg a ànd ak yéen ci euh, propos yi nga xamante ne waxoon na ko ci biir émission boobu ak itam yan réaction la war a méngool loolu tax ñu dalal ñi nga xamante ni seen xel màcc na ci wàll googu ki ci njëkk muy al oustaz Omar oustaz Omar jàllo moom la ñu dalal tey ci jataay bi oustaz Omar maa ngi lay nuyu. alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa mm-hmm. nuyu Cheikh Abdoul Khadir ci plateau wal fajiri bi ci émission grand format mm-hmm. euh, di leen jaajëfal ci émission bi ci beneen côté bi tam ñu dalal ki nga xamante ni moom moo di al oustaz Atoumane Samb nekk koo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu histoire moom tamit aussi moom lañ dalal ci plateau bi oustaz Atoumane ñu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi lay fay ci Abdul Xaadir di sant yàlla subhaanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba mhm. di nuyu mbooleem téléspectateur Walfadjri jërëjëf dinañ ñëw nag ci point yu bare bari bokk na ci point yi nga xamante ne jot nañ koo dégg wala jot nañ koo for yëpp sax xëy na waxtu yi dañu ko may mais ci biir waxtaan bi dañ ko gën a développé dinañ waxtaan ci li nga xamante ne moom moo di salafiya parce que gis nañ ni ki nga xamante ne moom moo di Ahmad Khalifa Niass euh, wax na ci salafiya lu bëri wax tamit ci wahabiya wax tamit ci ki nga xamante ne moom moo di euh, docteur Ahmad euh, Lo bi nga xamante ne moom moo bind téere bi di taqdisul asxaas di téere bi nga xamante ne jot naa indi ay coow yu baree bëri ni ki tamit ci jëmm ji nga xamante ne lislaam yëpp dañ ko respecté mu di al Buxaari al imaamul Buxaari yeneen propos yu ci indi mais laata may dugg ci li nga xamante moom moo di al yi dama bëgg a njëkkee ci al oustaz Atoumane euh, oustaz Atoumane ci li nga xamante ne moom moo di wàllu histoire naka nga ñu mën a waxee kan mooy docteur Ahmed Lo pour ñiy déglu xam laata ñu mën a dugg ci euh, waxtaan bi. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin wa mhm. sallallahu wa sallama ala nabiyina wa habibina wa qudwatina muhammadin wa ala alihi wa Euh, docteur Mouhammad Ahmad Lo euh, aalim la min ulamaai ahli sunna wala bu la neexee nga ne aalim la min ulamaai aalamil islam boroom xam-xam la ci borom xam-xam yi monde islamique yi gën a ràññeeku dimension bu universelle euh, tàmbalee am njàngam fii ci réew mi nga xam ni fii la juddoo fii la cosaano bokkit ci famille boo xamante ni naka jekk ca taarix ba tey dañ leen a xam ci njàng ndax boo xoolee baayam ak maamam sëñ ma Lo Isa mi ko jur ak dànku jabu mi ko jur boo leen toppee dañuy dem ca ndaam gu mag hmm. nga xam ni maanaam xam-xam rek lañ leen xamee woon ba ñuy jóge gànnaar ba nit ñëwee ci réew mi booba ak tey jiitu na lu ay at yu bare bare bare ndaam Abdourahmane Lo ndaam Abdourahmane hmm. ak yeneen ndaam yëpp hmm. ndam sannoos yeeg ndam yu bari ci yu nekk ci réew mi ah, nga xamante ni ñoom euh, càllal xam-xam dafa yàgg ci askan woowu mhm. moom nag mu bokk ci askan woowu juddoo fa euh, ba mu juddoo itam jàng xam-xam fii ci réew mi alquran la tàmbalee xifz ko bind kaamil noppi ca suubu ci njàngum xam-xam jàng ci ay gox yu bare bari jànge Touba jóge fa jànge Ndar jànge fu bare bari mhm. doo ko def aventurier muqaamara Euh, dem fële ca ardul hijaz ci madinatul munawara jaamia islamiya ba suñu borom dogal fa mu amee fa ay lijaasa yu gën a kawe kawe lu mel ni doctorat euh, nekk itam ab jàngalekat nekk ab yarkat taxawal ay institution yoo xamante ni jàng jàngale ko tax jóg mm-hmm. lu mel ni kulliyal ifriqiya bii nga xamante ni moo ko jiite euh, nekkitam koo xamante ni ci monde islamique xam nañ ko mu yor ay responsabilité yu bari mm-hmm. lu mel ni ligue des ulémas d'Afrique jiite na ko fi. Mhm. jiite fi it yeneen i maanaam institution ci wàllu xam-xam. Mhm. di taalifkat di bindkat nekk itam koo xamante ni xutbakat la waaraatekat. Mhm. di yarkat di jàngalekat. Euh, mbooleem ñi nga xamante ni ay boroomi xam-xam lañ te jaxasoo ak moom ñenn ñi doon oon ay sëriñam jàngal ko. ku mel ni Cheikh Sohaymi ca mamlaka saoudiya ak ku mel ni Cheikh Man Dakar ak ñu baree bari ci waa réew mi ak waa Afrique. ñenn ñi bind nañ seere ci moom xam-xam bu yaatu mhm. ak itam rafetu aw doxalinam euh, kon daal ci gàttal euh, jëmm la joo xamante ni bu ma yeboo ni Sénégal da ko war di sagoo ndax euh, dimension bi mu am ci xam-xam ak mhm. itam yéwén bu mu ci yéwén ci di ko jàngale di ko bind di ko taalif di ko joxe mhm. jërëjëf personnalité la bu nga xamante ne comme ni nga ko waxee instance internationale xam nañ ko donc partout dañ ko fay invité ngir xam-xamam comme ni nga ko waxee Euh, ci dinaa ñëwaat sax ci côté li taxoon may euh, indi lu jëm ci wàllu euh, personnalité boobu pour ñuy seetaan gën a xam ana lan moo taxoon ki nga xam ne moo di Ahmed Khalifa Niass doon wax kon damay ñëw ci sama première question yu nga xam ne damay dugg rek ci du a duggagun ci wàllu fiq bi mais dama bëgg a dugg ci li nga xamante ne moom lañ tuddee salafiya salafisme salafisme euh, xamoon nañ ko en tout cas ci ñi nga xamante ne peut ñoom ñooy pro occidentaux yi nekk fii suñu réew ni ñu ko daan waxee di ko waxee ci format bi nga xamante ne moom la ko occidentaux yi waxee mais cette fois-ci dafay génn ci gémmuñu ñu nga xam ne jàpp nañ quand même nu mu mënti demee xëy na réerewuñ diine wala nekkuñu ay nit ñu nga xam ne jànguñu nekkuñu ay ñu nga xam ne maanaam euh, réerewuñ diine comme ni ma ko bëgg a waxee euh, dañuy tudd salafisme et et daal ci teg loo xamante ne jàpp nañ ne seen réputation daal rafetul ci réew mi lan mooy salafisme bi nga xamante ne xëy na peut-être comme ni ñu koy waxee ñoom seen réputation dafa rafetul ci réew mi ak lan mooy salafisme bi nga xamante ne moom la alxuraan ak sunna euh, tëral. sallallahu wasallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain am dégte bu baax ci laaj bi Abdul Xaadar li ko jëf danaa def benn benn introduction muqaddima bu ndaw am lu ma bëgg a wax mooy mhm. euh, li ñu tuddee assira bañ al xaq wal batil mhm. muy le combat wala la bataille entre le mal et le bien Mm-hmm. xeex bi nga xam ne dafay dox diggante mm-hmm. euh, ñaari camp muy camp bi représenté Iblis ak camp bi représenté dëgg mm-hmm. bi yàlla sàkkee sunu maam Adama ba léegi dafay am ba ilaa yawmi diin borom bi sonta dafa sàkk Adama woo mbindaafoon yépp nañ ko sujuutal ña fa newoon sujuut Iblis bañ teg ko ci ak rëy ak li nga xam ne mooy ak réer ignorance moom moo gën aadama du ko sujuutal suñu borom dikku ak alkaane ngir jëf jooju mu wax borom bi subhanahu wa ne ko comme aadam moo tax nga nar ma alak dinaa jéem ci moom lu ma mën pour mu fekk si ma ci alkande gi iblis jëm ba juumloo aadama ci àjjana adama ak xawaa ñu tuub suñ borom jéggal leen iblis mënatul ci aadama dara waaye mu topp ci njabootu aadama di jël am ñu muy yóbbu yonent bi alayhi salaam ñëw dëggal ko ci xadiisu jaabir mu ne inna min annaasi mafatiha lil xayr maxaaliqa lil char wa inna min annaasi maxaaliqa lil char mafatiha lil xayr doomu aadama yi dañu séddalikoo ñaari kuréel dafa am nit ñoo xam ne ñoom porte de bonheur lañ ay ñoo xam ne lu baax buntu mbaax lañ lu baax rek koy ci ñoom lu bon jaare ci ñoom am ci nit ñoo xam ne ñoom ñoom porte porte mal lañ wala porte malheur lañ ñoom lu bon ci ñoom rek lay ubbeekoo lu baax du jaare ci ñoom léegi combat boobu mooy am ba ilaa yawmi diin léegi nit ñi saa bu ñu taxawee da nga leen di séddale ci ñaari cas yooyu da ngay xool ki nga xam ne dafa nekk ci côté xaq ak nekk ci côté baatil li koy wane nag mooy du ay revendication mais actes yi nit kiy posé ak wax yi muy wax mooy classe nit ki fan la nekk dafa mel ni magum jëm mu taxaw di def yëfu xale ba pare naan man magum jëm la léegi magum jëm comportement ay wax da ngay wane nga nekk magum jëmm mais sooy def yëfu yëfu dof di ngay def yëfu irresponsable ba pare naan man magum jëmm la magum jëmm gi ci wax la mais ci ci melokaan nekk ko magum jëmm parce que magum jëm dañ koy incarné mais du nekk ci ay wax su ko defee loolu laa bëggoon a ubbee pour dooru ñëw ci li nga xam ne moom mooy lan mooy salaf yi <coughs> léegi damay tàqale ñaar parce que euh, léeg-léeg li ñuy tuddee intellectuel yi dafa am ci yu ñuy dugg toujours mooy loo xam ne l'islam tegu ko ñëw ñëw teg ko amul benn dictionnaire islamique booy dem fekk fa lu ñuy tuddee salafisme wala salafiste wala wahhabisme wala wahhabiste parce que en français mooy yi ñu teg ñoom jublu ci islam nga xam dañ koy coller loo xam ne dafa am collation ak li nga xam ne mooy la religion islamique saa buñ ci yokki isme wala iste c'est péjoratif dafay nekk loo xam ni lu ñaaw sabotage lañ ci jublu ñoom bu ñu waxee salafiste mooy taalkatu bomb suñu waxee wahhabiste ñoom c'est la même chose suñu waxee islamisme islamiste mooy même chose mais ñu li ñuy wax mooy dictionnaire bi ni ko l'islam indee as salafiyé waxuñu salafiste mais as salafiyé ñun bi ñuy wax ñun ñoom suñ koy jël parce que terme bu nekk nam mel dañ ko war a considérer noonu bu fekkee amul traduction bu mu tollal ci beneen làkk bi nam mel lañ ko war a joxe. ci culture làkk waaw ah, ci culture làkk boobu. léegi comme amul moo bu mu tollal ci français bu ñu ko jéem a jox ñoom seen interprétation parce que boo delloo ci dictionnaire yi fi nekk yëpp Larousse ak yeneen yëpp suñu lay expliqué lan mooy salafisme dañuy wax ne doctrine la boo xam ni mooy delloo nit ñi ci dundin gu njëkk ga. ku ko nanguwul nag ñu jéem laa forcer rey la wala xoqatal la wala tiital la ah pour nga dellu ci fan force doo war oto doo dugg avion doo dugg studio di wax ci rajo wala doo wax télé doo feeñ ci écran ila axiri xam nga loolu wax wax wax ju erroné la loolu kenn waxu ko dañuy wax salafisme sal as salafiya munhaj la boo xam ne wala baat bi ci bokkum salafiya cosaan bi mooy as salaf mooy mag ñi léegi suñu nee salaf yi yaa bi askan la nisba la koy askan ki nga xam ne tey masalan euh, euh, dafa topp yoonu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani Cheikh Abdul Qadir Jeylaani la ñuy wax mais ki nga xam ne daf koo topp dañ koy askan ne ko qaadiriya ndax qaadir gi ñu askan ne ko qaadiri moom yaa boobu nisba la ki topp tey Abul Abbas Ahmad at Tijaani ñu ne waa ji Tijaani la dafa topp ki ñuy wax Ahmad Tijaan ñu ne ko Tijaani léegi ki topp yoonu salaf ñu ne ko salafi yi nga xam dafa topp yoonu salaf mag ñi ñu ne ko salafi tuddee ko moom ab salafi mooy dafa topp yoonu mag mag ñoo ñan lañ mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ay saxaabaam ak ñu ñëw seen ginnaaw mooy ashaabul quruun asalaasa al mufaddala ñetti si yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne xayru naasi qarni maas yi gën ci maas yi mooy sa sama maas ñi maas man bii ci tege mooy maas gi ci teg bi ci teg mooy yonente bi alayhi salatu salaam moo joxe moo wane seenu fadliya ak seenu xayriya seenu ngëneel moo wane seeni vertu seenu mbaax baax ci wàllu jikko baax ci wàllu xam-xam baax ci wàllu jaamu yàlla baax ci wàllu pas-pas am ragal yàlla gu mat sëkk dund l'islam boo xam ne pur et la l'islam bu authentique gu set wet gu set wet ci sell raxul amul njaxas moo tax yonente bi alayhi salaam wax na ñoo dund l'islam bu mel ni bi muy dund wala bi mu jàngale nga xam ne booba raxaguñ ci dara l'islam pur la mu ne ñooñu ñooy maas gi gën ci man léegi ay bi nga xamee ne dem nañ ba jamono ay nit commencé ñëw ne al amru unuf di weddi ndogal ne ndogal yàlla yàlla yëgu ko day am ba pare yàlla door xam li xew yàlla dogalul mbir yi ñëw ne nit ki nga xam dafa naan sàngara dañ koo forcé yàlla moo ci am part de ki naan sàngara amu ci part de responsable parce que yàllaa ko dogal ñu ne tuddee alxadariya comme yàllaa ko dogal kon waa ji waru cee am part de responsabilité loolu bi mu commencé am bu demee ne Abdullah ibn Omar boo demee ci euh, sunan Abu Daawud commencé di def ay jàmmaarloo di bind ay lettre di wax ila axirihi ci euh, aj maako su ñëwee mu taxaw di def ay leeral ñu dama dem ba yàgg génération saxaaba yi dem mbir di gën a yaatu euh, génération taabiin wala atbaaw taabi bi ñu ñëwee fala Sufyaan Sawri naan aleykum bi asaari man salaf da leen topp comme njaxas yi na ku nekk a ngi wax idéologie yaa ngi bëri bàyyi leen yooyu ngeen topp asaaru salaf topp leen yoonu mag soo ko bëggee dégg ci beneen euh, déggin bu gën a gàtt mooy fii Sénégal dafa am dafa am ñu choisir dënku ci seen wàllu diine ci wàllum tarix tarix boobu kii daanaa man tijaan doy ma murit ma doy kii ne man murit doy ma tijaan ma doy kii ne man tijaan doy ma murit doy ma xaadiriya kii ne man tijaan doy ma murit doy ma xaadiriya doy ma chaziliya moo ma doy kii ne yëpp doy benn doy ma ci man rafaaye ba la nekk ci Égypte man tarixa moo ma doy kon kenn ku nekk da nga am choix ne man bii laa opté ci wàllu diine ki kii am choix ne man avant yii di ñëw parce que xam nañ kañ la judd ca boo nee tarixa tijaan xam nañ si ahmada tijaan yi kan la judd ca aynul maadi ca jazair boo nee tarixa rifaa yi xam nañ ahmada rifaa yi kan la judd boo ñoom avant ñoom ahmad ibn hanbal ci lañ lañ nekkoon euh, abu hanifa ci lañ lañ nekkoon ñëw seen ginnaaw ba l'islam di ba ñooñu di judd ñoom abdul xaadir ak jeylaani ñooñu seen papa yi ci lan lañ ñëwoon ak seen maam yi très bien léegi ñu ñun mm-hmm. yooyu yëpp ñun dañuy dellu ci lislaam gi nga xam ne moom la yonente bi jàngale woon avant yi di feeñ ci la ñuy dund léegi ñooñu la ñuy askanele salafi yi di leen askanele wahabi mhm. léeg nag xam nga dafa am loo xam ne moo logique Abdul Xaadir mhm. léegi ki nekk tijaan yi suñ ne nga da am fierté lan moo tax mooy moom dane am benn waaye bu tudd Abul Abbas Ahmad at-Tijaani juddoo fale te aydun maadi faatu fii ci Fass 1815 kooku moom a doy moom laay topp hmm. ñu ne ko yow tijaan yi nga mun effectivement te dama ci am fier am ku ñëw ne man ah Cheikh Abdul Qadir Jeelaani laa toog laa laa laa laa topp juddoo fële ci Bagdad mooy bëgg a dugg détails yi muy jël temps. Hmm. keneen wax leneen keneen wax leneen kii ñëw ne man. Hmm. l'islam rek laay topp tënku ma ci tarixa ñu ne ko déedéet yow benn waaye nga topp far la force mu neex la nga mu naqari la bu ñuy wax Mouhamad Abdul Abdul Wahab juddoo fële ca ah, ca ca Uyayna ca Arabie Saoudite ca Najda ah, ñu juddu. 1703 faatu 1791 ci yenn nga toog far force yow wahabi hmm. mu neex hmm. nga nit ki ne man fii laa bokk ñu ne ko nga bokk ñu ne hmm. ah, ngi noonu tabarkàlla wax nga li nga xamante ne moom moo di ah, arrahilul awal maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ñu baax ñi nga xamante ne ñoo njëkk a feeñ ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam mu di ak euh, xuruun yi nga xamante ne ñoo ca topp question de temps la xëy na peut-être mais du question de effort comme li nga bëgg a wax yàlla moo leen indi ci jamono bu nga xamante ne jamono boobu moom moo gën ci jamono yi bokk teg yeneen jamono yi ci des mais ci biir loolu dafa wax lu nga xamante ne ci biir dañuy gis ne dafa mel ne nekkatul diine wala su dee diine bëgg naa ci am ay euh, ay preuve cest diir su fekkente ne euh, nit ki dafa nangoo bokk ci nit maanaam man tiijaan la wala man xaadiri maa ngi bokk en tout cas ci benn secte wala ci benn appartenance telle appartenance léegi kii ñëw bëgg ne salafia la la indi te ñoom ñëpp dañu jàpp ne eh, yàlla lañuy jàmm yàlla kenn la yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañu ñuy topp alayhi salaatu wasalaam eh, lan moo nar a indi lan moo indi problème boobu ci histoire Sénégal ndax dañoo jël diine ji dénk ko mag ñi ñuy tuddee Sénégal nga xamante ne dañ magi Sénégal wala bu ñu waxee mag yan mag lañ ci jublu lan moo indi en tout cas eh, li nga xamante ne moom moo di conflit bi am ci diggante surtout bu ne salafiya contre yeneen euh, tarixa yi waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh hmm. Abdou Khadre ci laaj bu am solo bi ak introduction bi nga xamante ni al aq Omar def na ko hmm. nga xam ni daanaka xawoon naa doy sëkk hmm. ndax leer bu mu leer waaye question bi ñu ci toxtal dafa gën a amati solo euh, xam naa incha allah man dafa am ay question yu muy posé yu bari bala maa ñëw ci sa laajte bi Euh, bi ci njëkk mooy dëggantaan lan moo xew lan moo xew ba tax maanaam ñu gis nit koo xamante ni xëy na maanaam taxaw défier ñëpp teg ko ci insolence bu extrême te kenn mënul ni lii mooy spécialité cim ci njàng kenn mënut a teg sa baaraam ni lii mooy spécialité am ci njàng nee na docteur lii mooy xusuusiyam xusuusiyam maanaam. Mm, mm. lii mooy spécialité fi mu jàng kenn mënu cee teg baaraam. Mm. mu jóge foofu. Mm-hmm. yor insolence bu extrême. di jéggat plateau par plateau. di sàgg ñëpp. lan moo xew. ba tax benn waay boo xamante ni ci wàllu at lu romb na soixante-dix ans. waaye ànd ak loolu lépp foo ko fekk. ñu ngi sacrilège islam. di caricature islam te di ko def ci période bi nga xamante ni période bu sacré la ci islam muy chehru ramadanul mubarak waaye lan moo xew ba tax aw nit ay journaliste mu jaral leen ñu mobiliser wu jóge seen plateau fekk ko nag ba këram dégg ko seeni micro maanaam jël mboole média teg ko ci disponibilité ngir lan ngir mu yëkkati ay ay saaga maanaam li ñuy tuddee injure publique yow da ngaa yëkkati sa sa plateau yëkkati say moyens jël sa mboolem matuwaay yi nga xamante ni moom ngay tasaare say xibaar fekk nit ba këram ngir muy def ay injure publique ci kilifa goo xamante ni moo ko gën gën bàyyam gën ma am loolu lu ñu bàcc la maanaam lan moo xew ba tax maanaam imaamul Buxaari lan la représenté ci l'islam ndax l'islam tey dafa am ñaari source de référence yu gën a fondamental muy al kitaabu wa sunna te loolu ahlu sunna ñëpp ahlu sunna maa ngi ci jublu bi mafhumil am ñëpp dëppoo nañ ci ni ñaari source islam yi gën a fondamental mooy alkitaabu topp ak sunnatu rasul sallallahu alayhi wasallam sunna soos yi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ni dafa am sunna su wér ak sunna su wér buñ ko dajalee ja ca gën a wér mooy kitaabu imaam Muhammad ibnu Ismail al nit mën a taxaw ci plateau télé yëkkati ay saaga ni kooku fenkat la muy sacrilège boo xamante ni da koo sacrilège islam ak imam muslim wax ni dégguñu woon arab bi muy am quinze bi laata muy am quinze ans bind na nangam jël maanaam tuuma xeetu wax yu ñaaw yu nekk mu jël ko teg ko ci kawam ñaareel ba li jaaxal ñëpp mooy complicité bi am ci nga ci ci ci ci ci organe de presse yi ndax nit ki bu fekkente ni li ñu tudde njuumte mooy def nga ko jàpp ni daf la bett ci sa émission am yu ci jàll yoo xamante ni contrôlé woo ko. Mhm. mais bu déwénee mu bañ laa dal. mais ñu xool chaque chahru ramadan bu ngeen seetloo juróom ba juróom benn chahru ramadan yu toftaloo chaque chahru ramadan plateau yi dañ koy xëccoo ngir mu saaga l'islam ngir mu caricaturer ak charia al islamia mhm. tuuma yi nga xamante ni gis nañ ko mu yëkkati ko teg ko ci ndodd docteur Mouhammad Ahmad Lo muy tuuma yu garaaw yoo xamante ni naqariwuñu torop ndax li tax mooy ku saaga imaamul Buxaari wax ni imposteur la wax ko imaam muslim ibnu Hajjaaj wax ni imposteur la kooku jullit boo saaga waat ci ginnaaw ba bu fekkente ni nit la da ko war a da ko war a jubiler dafa war a kontaan ci loolu hmm. lii nga laaj nag muy turux yi ni mu demee nii defoon naa ci ay exposé euh, dafa am benn benn rivalité boo xamante ni faw bu tanasor amee bu xëccoo amee li tax islaam tëj bunt boo xamante ni jullit ñi mën nañ cee créer maanaam xëccoo ci seen diggante li tax islam tëj ko mooy yooyu lay bañ faaw mu am ndax kenn ku njëkk samp ndax tarixa bi nga xamante ni moom lañ xam bu njëkk a tas Sénégal mooy tarixa xaadiriya bi mu fi saxee ba samp fi ba tasaaroo fi mhm. yeneen turux yi nga xamante ni ñëw nañ ci ginnaaw bi bi ñu bëggee samp ci ginnaaw bi am na yenn mbir yoo xamante ni teg nañ ko ngir ñoom itam mën a jàll. Mhm. du ma wax sax ci Sénégal mais ci Afrique bu ngeen xoolee xoolee wàllu tux wàllu tux mhm. nga xool alqadiriya ñoom dañuy daganal tux mhm. Cheikh Moussa Camara bi nga xamante ni qadiri la woon dëkkoon Sénégal gàngel bind na téere spécial di wane ni tux lu dagan la. Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Camara bu gàngeel. Hmm. borom rawdul basatin fii taarixi sawaadin. Uh-huh. zuhurul basatin hmm. bi nga xamante ni tarixa tijaan ñëw na pour implanter uh-huh. gis nga position tarixa tijaan yi ci wàllu tux. Hmm. nga xamante ni kii naan moo leen xaw a gënal kii tux. waaw nga xam ni kii naan moo leen xaw a gënal kii tux. yooyu da ngay dal di comprendre yu baree bari lan moo tax hmm. ñuy dem a dem a dem ba yàgg yeneen turux yu gën a bees judduwaat ci ginnaaw bi ñoom itamit am influence yu mel ni yee nga xamante ni ñoo leen jiitu woon am commencé ñoom it di ami nit te nit ñi duñ ko jëlee fenn ci lu may tarixa yi leen jiitu woon hmm. yooyu yu baree baree baree baree bari lay jur loolu nga xamante ni moo doon xew ci diggante turux yi nag dañoo dem ba jëmmi jamono am aw nit yoo xamante ni ñoom xam naa jomb suñ borom moo ubbi seen xol def ci tawfiq ñu gis ni daal comme coow li bari na ñoom dañuy dellu ci al aslul asil ca mooy la nga xamante ni kaan kaana alayhi rasulu wa asxaabu aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa sulukan la yonent bi saa sallam nekkoon mook ñam yaroo ci pas-pas ci jaamu yàlla ci ay jikko ñoom ca la ñuy dellu te duñ ci rax dara mhm. ñu gis ni ñooñu menace lañ ci yi ñu doon créé tuuma yi judd woon démb ci diggante tarixa yi ci diggante rivalité yi amoon ci confrérie yi mhm. tuuma yu mel noonu judduwaat rek kon tuuma yi nga ma yi nekkul ne comme exemple ci wàllu diine la mais plutôt ci côté culture la bu xamante ne xëy na ñoom dañ koo tàmmoon te xëy na loolu diine encouragé wu ko ñu gis contraire bi après ci turu diine ñëpp di xeex alors li ñuy xeex daanaka boo dee xool euh, baynal xaqi wal baatil la baynal xaqi wal baatil la gis nga diggante dëgg ak fen pour ñuy déglu pour muy leer mhm. tuuma yi nga ni yëkkati na ko wax ni maanaam docteur Ahmed Lo moo ko wax dégg naa ko sax mu wax ni cheikh na docteur xam naa loolu Oustaz Omar dina ci ñëw. Mhm. dafa wax ni euh, waa Sénégal mag ñi mënuñoo jàpp duñu julli mënuñoo woor mënuñoo def nangam duñu julli dañuy takk seeni i ndey lépp dara wéru ci. Mhm. li jaadu woon ci jamono bi mu koy wax ci plateau bi journaliste yi ko wër ni ko loolu fan la ko wax bu dee ci téere sàngam ñu ne ko wax indiqué page. Mhm. loolu moo jaadu woon yéen da ngeen a toog ci plateau télé. benn waay nekk fa di def ay accusations gratuites mensongères di ko teg ci ndodd kilifa di wax ni nee mag magi réew mi mënuñoo julli mënuñoo jàpp bal dañuy sëy seen i ndey mais na indi page yi nga xamante ni ci la docteur waxee maa ngi koy lancé défi fii ba ilaa yow mi diin page yooyu du ko génne. Hmm. d'accord kon euh, andi nga lu leer ci li nga xamante ne moom moo di ci côté confrérie yi en tout cas seen histoire fi ñu tàmbalee ak li nga xamante ne moom moo leen xaw a gàllankoor en tout cas ci côté culture. mais bi ñu demee ba def tamit aussi choc diggante ñi nga xamante ne xëy na dañu jàpp ne lii moom mooy aqidatu ahlu sunna wal jamaa bu leer bi leneen lu dul loolu yi tamit dañ ko war a segg ci diine ba xam ne am na wala amul comme nan nga ko waxee euh, mais ci foofu nga daaneele foofu laa bëgg a ñëw dégg nañ ki nga xamante ne moom moo di euh, docteur entre guillemets xam naa di ma ñëwal ci docteur gi docteur Ahmad euh, Khalifa Niass donc mësuñu koo dégg en tout cas muy wax ci taqdirul asxaas te léegi leneen léegi mu am 76 ans alors bu yàgg ba léegi mosuñu koo dégg ci taxdiisul asaas te taxdiisul asaas xanaa plutôt war na ëppal vingt ans euh, léegi temps yi lañ ko ci dégg mu indi en tout cas yeneen i wax yu nga xamante ne ci côté xam-xam xëy na peut-être boo ko dee seet dina jafee gis mais côté acharnement bi ndax ci téere bi daf ci wax loo xam ne dafa aju ci xotti war may mag ñi nga xam ne moom la ñu tuddee magi Sénégal mm-hmm.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 wax na nangam borom kitaabu rima wax na nangam wax comme ko wax tax yooyu mhm. ñaari magu Sénégal ñoo nekk ci téere tax gis ba mu jeex ñaari Sénégal la ci tudd ah, kon xam nga ak ñeme yàlla mënut a loolu nga dem magu Sénégal mais ni bi magu Sénégal lay waxal téere bi yi ah, waxul dëgg loolu mooy li muy mooy mhm. jàngul lii jàngul téere bi mhm. li gën a bon ci nit nag mooy mag moo xam ne dangaa toog c'est-à-dire li atumaan doon wax li métti xool ci

tabax na tabax na école ñaata ndongo la jàngal ñaata téere la jàngale Ahmad ban école la ci jiite Ahmad Khalif ban école la xam nga ndongo bu mu jàngal yow. xam nga ku mu jàngal diine. xëy na dañoo ku mu jàngal ku fekk ji ci moom xam nga ko wala ku jàng ku mu kenn ku mu jàngal mhm. léegi ba ba mu nekkee Sénégal ba léegi mës ngaa romb dara luy jëriñ Sénégal comme ni si di def nii tey dara luy jëriñ Sénégal ñu ne lii Ahmad Khalifa moo ko taxawal yow mës nga ko gis ñu ne lii Ahmad Khalifa moo ko taxawal luy jëriñ Sénégal comme yor na xaalisam mhm. xanaa loolu lañ ko xamee ak di def ay ay ay mbir yoo xam ni ñëpp xam nañ ko hmm. foofu bu waxtaanewul ci sexe ci biir weeru koor ah waxtaanewul ci wàllu nobante ak amour ak yu demee noonu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi toroxal diine moment bi nga xam ni seytaane yi seytaane jinne yi dañ leen di tënk ci weeru koor seytaan am na am na seytaan nit yoo xam ñoom jëlee ñu tekki bu ñoom hmm. toog ci plateau yi ñoom ñoom rëcc tekkeeku toog ci plateau yi di wax ay ñoom bi hmm. toog ak ay journalistes yoo xam ne amuñu benn niveau benn culture générale ci diine nit di wax loo xam ne vraiment c'est terre à terre quoi Mhm. ku am tuuti niveau diina jàngoon Laxdari rek ba mokkal ko ba fer ci mokkal ko maîtriser ko am na loo xam ne su ko waxee da nga naan ko non li nga wax nii c'est pas vrai mhm. parce que li nga wax nii dafa dafa ko jàngoon sa bopp mhm. est ne ñi ñoom ñoo di euh, maanaam ibaadu yi lay wax des fois wala mu ñi nga xamante ñoom ñoo di salafiste yi dañuy xeex sexe jigéen ñi ñu daal leen di abandonné def leen ne daanaka duñ bokk ci société bi loolu moom moo tax muy ah, utiliser terme yu mel noonu ñoom yëpp ay njaboot Mm. ñooñu may wax liñ jëriñ ci réew mi jëriñ jëriñu ko yor nañu ay école yor ay internat mm-hmm. di jàngale ah, am euh, njëriñ amoon njëriñ seen bopp amoon njëriñ seen seen diine amoon njëriñ seen société amoon njëriñ seen réew loo xam ne li may wax ni yëpp loo mën a dut baaraam mais li ma la waxoon sànq moom man lu loo xam ne mën na kaa dut baaraam la rek saa waay fi taxawal loo xam ne luy jëriñ Sénégal wax ma lan amul beneen bi mooy doctorat gi ñu koy taxal parce que sénégalais ñëw forme la neex ñoo toog journal national na docteur mais dañ ko war a interpeller parce que bu dee docteur doctorat ci wàllu académie mhm. ah niveau académique foog nga am thèse boo am da nga koy teg ko jox nit ñi mais docteur bi am doctorat doctorat honorifique mooy muy muy doctorat honoris causa doctorat honoris causa mhm. France ñoo koy joxe ñett ñoo ci gën a siiw am na yeneen dëkk yu koy joxe boo xoolee honoris ak causa c'est un mot latin mhm. c'est un mot latin li muy tekki mooy doctorat d'honneur am na sax magistère honoris causa Mhm. ni doctorat bi amee noonu na ñu bëri xamuñu ko. Mhm. mais na doctorat honoris causa am mais doctorat honoris causa Abdou Khadre ay journaliste ngeen ngir yàlla journaliste yi. Mhm. nañu def investigation nañ dem xooli lan mooy les critères pour obtenir pour di l'honneur du doctorat honoris causa. pour yow ñi jox la doctorat honoris causa yan mooy critères yi looy def lan ngay def. fan ngay jaar ba université ba am université jox la beneen bi yan université ñoo koy joxe université tubaab. université tubaab yooyu yan la mooy université tubaab yoo xam ni. <clears throat> ci biir université ba dafa am lu tuddee benn genre poursi boo xam ne ñoo fa nekk dafa am xadamaat yooy defal ay xadamaat yoo xam ne da koy def hmm. ñoom ñu kontaan ci xam ne lii ñoom ñoo ko waroon liggéey mënuñu ko yaa ko defal hmm. ñu war jox la doctorat honoris causa mais fu ñu ko waxee docteur moom hmm. dañu wax Youssou Ndour docteur Youssou Ndour doctorat honoris causa moo ko njëkk Ahmad Khalifa wala nit ñi dañoo fàtte loolu. kon façon doctorat boobu la ñuy la ñuy la ñu jàpp ne. xëy na doctorat am mhm. boo xam da ngaa ay nit servir leen dara am loo leen defal jëriñ leen mhm. <laughs> moo tax loolu journaliste bëgg naa ñu dem def investigation xool mhm. doctorat honoris causa naka lañ koy amee. ba defee loolu mën naa jëriñ kon moom. jàngul téere bi. parce que téere bi waxut ak Macky Sénégal Macky Sénégal ñaar la ci tudd téere bi waxut ak Macky Sénégal kon. kon ku taxaw naan dafa toog saaga Macky Sénégal téere bi Macky Sénégal yi taxu koo wax. téere bi li mu tudd ci ay nit ci adduna bi yëpp ñëw Sénégal tudd fi ñaar nga ne Macky Sénégal lay wax. Mm-hmm. loolu mooy mooy li muy mooy jàngul téere bi te ci nag jàng téere bi wax mm-hmm. mbokk yéen a ngi ànd ak seen jataay spécial ci Walfadjri mu nekk jataay spécial pour tontu ki nga xamante ne moom moo di euh, docteur euh, ki nga xam ne mooy docteur Ahmad Khalifa Niass ci propos yi nga xamante ne yëkkati woon ko jëme ko ci yi jëme ko ci Taqdisul Asxaas jëme ko ci borom Taqdisul Asxaas ci kàddu yi nga xamante ne wax na ko. Euh, sànq mu di euh, souvent lan lan moo tax lan moo wutale yi Sénégal yi nga xam ne dañu jàpp ne ci diine lan doon dox en tout cas gis nañ mag ñi nga xam ne bind nañu euh, tasawudu sixaar jawharu nafis mu lay nu sudur mu nawi sudur tasawudu subaan et cetera muhaybul qudus ñooñu sunna bi ñuy wax dafa bokkut ak sunna bi nga xam ne mooy sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu mën a séparer bu ñu dee wax mag ñi nga xam ne mag yi Sénégal rek lañ wax wala diine kenn ku nekk da ngaa war a am l'islam noir l'islam blanc l'islam arabe l'islam africain. d'abord euh, mhm. islam xamul waa Sénégal ak waa Saoudia waa Mauritanie islam lu mu xam mooy monde islamique magi l'islam moo am. Mhm. magi l'islam moo am. Mhm. yooyu waa Sénégal nga ci biir yu waa Mauritanie ngi ci biir yu waa Mali ngi ci biir buñ ne magi l'islam yonent bi ci jiitu comme ni ko Amar leerale saxaabatul kiraam ñi nga xam ne ginnaaw yonent bi ñoo gën ñëpp. ñoo ca topp taabiun ya saxaaba yi yar ñoo ci topp taabi taabiin ñoo ci topp génération yi toppante a'immatu mazahib al arbaa nekk ay kilifa yoo xamante ni dañoo am xadamu raasiq fil ilmi wal bañ nangul leen ko ginnaaw ba képp ku toppaat seen yoon ginnaaw te baax jubal la baax le jubal ko dañ koy d'accord nangu ko la nga juum bu fekkente ni njuumte la mu nar a tas ci askan wi boroom xam-xam yi topp sa ginnaaw dañ koy leeral buñ ko leeralee ñaanal la yàlla loolu yàqul dara ci sag mbaax képp koo xamante ni nag yaa ngi tasaare loo xamante ni bu eggee ci xeet bi bidaa lay doon wala shirk lay doon loolu dañ ko mësta nëbb ñu dañ koy dénoncé fu ko mën gis bu dee waa Sénégal ko def dañ koy dénoncé bu dee waa Arabie Saoudite ko def dañ koy dénoncé bu dee waa feneen ko def dañ koy dénoncé loolu ñun mësuñu ko xumtoo ci ay néeg ci pénc mi lañ koy wax te ku miin xutab yi mbokk yi di taxawal ci seen i manabir miin seen i muhadaraat xam ni loolu xumto wuñ ko ci biir ay néeg ci biti lañ koy wax yaa ngi dégg kon magi lislaam moo am ñun nag li mu ko waxee mag ñooñu nga xamante ni ci Sénégal fii lañu dëkk am ay jéego yoo xamante ni def nañ ko ci lislaam tàmbalee ko ca Cheikh Nasruddin ca jamono yi mouvement Tugunaan wàcc ci Xaali Njaay Sàll ñëw ci sëriñ Pire Xaali Amar Fall ñëw ci almaami Maba Jaxu ba gën a wàcc ñëw ci Cheikh Hadj Omarul Fouti ba ñëw ci Cheikh Ahmad Bamba Alhaji Malick ak ñeneen ñi topp seen ginnaaw yi yépp kenn koo xamante ni jàngale nga mbir moo xamante ni jariñ na xeet bi nekk sunna dañ koy tasaare jàngale kenn nag mënta wax kenn kenn mënta wax ba loo xamante ni ab saxaaba bu yonente bi yar bu ca tabbee duñ ko ko nangul ñu nangul ko keneen koo xam ne yaa ngi ci suuf saxaabatu kiram ridwanullahi alayhim loolu mooy lan mooy peeg sharia ku dul yonente bi sallallahu sa wasallam di ko loolu boo tax imaam Malik daan wax ni képp koo xamante ni da ngay wax mënees naa am lu si jël ci say wax jariñoo ko muy waaye mën naa am wax joo xam ni dañ la koy delloo ngir ñàkk gi ñàkk dëpp ak sunna ndax lan moo tax mu ñàkk dëpp ak sunna mooy yow da ngaa nekkul ku infaillible doo maasuum ak foo mën a doon ak foo mën a toll ci mbaax sa nga si Siddiq moo toog di séddale miraas ba aljaddatu maam ju jigéen laaj ko cër mu ne ko amul cër ci téereb yàlla bi te wax na dëgg amul cër ci téereb yàlla bi boo xoolee ci sératu Nisaa suñu borom subhaanahu wa ci jàngale miraas tudd ci benn yoon ni jaddatu nañ ko jox nanga mhm. ba ndaw sa benn saxaaba boo xamante ni mi ngi ci ron Abu Bakr moo ko ni fekk naa yonent bi saa sallam joxe miraas jël maam ju jigéen séddu ko sudus kon loolu lu ko réeroon la mu woote waat soxna sa del siwaat mu yëkkati sudus séddu ko ni ko sunna dikkal na ma boo xamante ni xawma ko woon dañ ma ko fàttali Abu Bakr ni Siddiq ginnaaw ko yonent bi saa sallam ku jant tiim moo la gën magi Sénégal ak magi Mauritanie ci yem ak magi Arabie Saoudite segam moo mën a tàbbi ci njuumte ab saxaaba fàttali ko xadis yonent bi mu jël ko deltu ginnaaw ca lam def taraajo kon fa kay keneen léegi nag yow am na noo bëgg a doxe nga ni doxin wii képp ku ni doxewul ci mag ñi da ngaa contre mag ñi da ngaa bañ mag ñi dañ la naan d'accord waaye sa doxin woowu yi nga bëgg a dox mooy di muamale nit ñi muamalatul maasum ñun diñ ci fekk si kenn waaye maa ngi ci tuuma yi nga xamante ni da koo yëkkati wax ni docteur Ahmed Lo nee na murit yi lii nee na murit yi laa nee waxul dëgg li ñuy wax ramat nii bi daa ihaawam sallat moom la def hmm. maanaam dafa summi mbubbam solal ñu ko taxawee nee nag rocceeku li mu wax ni docteur moo ko def bàyyam moo ko def moom hmm? moo doon wax ni képp ku gane leeti ab murit ci sa kër dog nga ci tarixa bi inzaaru dayfin muridin fi manazilikum sa yujibul xat an cheikhin bila fanadi murid yi la ci jublu murid yi la ci jublu mu ne ndax tarku salaati wa tarku sawmi diinuhumu kaza adawatu ahli cheikh si rachadi ah, ñoom liñ bàyyi côté diine noonu moo tax bi nga xamante ni ñëw nañ di defaat taba ci jamono yu mujj yii bi ñuy defaat taba al kibritul ahmar fi madaih qutbil akbar baatu kalimatul murid bi dañ koo dindi def ca inzalu dayfin aduwin fekk man maa ngi maqtuuta bi ci sama papa laa ko jële woon hmm? sama wéyjur maqtuuta bi nga xamante ni loxo lañ ko binde mu am tampon ak yeneen yoo xamante ni loolu dañ koy laaj lan moo waral bàyyam taalif téere boobu ñu tudde tanbihu naas fi bayaani shaqawati naaqidi bayati abil abbas loolu dafa am taarix dafa am lu ko waral dafa am lu ko waral Cheikh Ibrahim Diop Machar moo dem jaayante yeeg Serigne Touba ca Jolof nekkoon muqaddam bu mag a mag a mag a mag ci tariqa tijaniya def ci ay ma maali bi a shawqin la wala faasi wala lakin bi ardu Jolof xat bitu an def ci ay bayit loolu moo waraloon mm-hmm. ñu taalif téere boobu nga xamante ni ñu ngi ko tuddee tanbihu naas fii bayaani shiqwati shaqawati naaqidi bayaati abil abbas téere boobu dañ ciy jàngale ni képp ku mës a jël werdu tarixa boobu ñu nekk ba ko ak foo mën a jëm sawar a nga jëm mm-hmm. ak yeneen yoo xamante ni buñ ko sulli woon mm-hmm. ta bu bàyyiwul yi muy wax adduna dina dem ba sulli ko yoo xamante ni kenn mënu ci teg baaraam waxuñu ko ngir jaxase ko la communauté mouride waxuñu ko ngir jaxase ko kenn waaye mbub mi summi solal ko docteur Ahmed Lo lañ summi waat ne ko mbub mii delloo ko fa nga ko jëlee woon lii nga ni docteur a ko wax ci ñii waxu ko waaye say wéyjur a ko wax tabarkalla euh, mbub moomu kon comme ni nga ko waxee kër bàyyam la dëkk mais dëkkul ci kii nga xamante ne moom la ko bëgg a solal suñu dellusiwaatee ci euh, Cheikh Omar mooy wax na ci li nga xamante ne moom moo deel imam Ibn Abdul Wahab nee na imam Ibn Abdul Wahab euh, service secret anglais yi rek ñoom ñoo ko yoroon Euh, donc di ko manipuler nu mu leen neexee di ko jox sax euh, su bëggee des fois à part ñeenti soxnaam yooyu ñu jox ko beneen soxna bu nga xam ne moom lay wéttali ko alors donc buñ dee wax wahabiya te dañu jàpp ne ci imam Abdul Wahab moomu lañ ko jëlee ndax wahabiya lu existé la benn euh, beneen bi si tegee ndax imam Ibn Abdul Wahabiya ak histoire boobu nga xamante ne moom la ko kole hmm. lu existé la wala. waaw xam nga ñoom da ngay reeba rek li mhm. li Fatima doon wax léegi sax am loo xam ni da ngay fekk ay yu ne fàng leer nañ yow ngay dem di jéem a créer loo xam ne wax dëgg yàlla existé wul mhm. te doomu aadama yi am na loo xam ne mënoon nga ko wax 1990 mu jàll wala nga wax sur l'an 2000 mu jàll mais la 2022 bi l'an 2022 ak niveau technologie fi mu toll. 0.2. 0.2 recherche ni mu yombee actuellement ak moyens yi am. Mhm. dañuy tuddee les NTIC les nouvelles euh, technologies de l' information de la communication am na yoo xam ne soo ko xale yu ndaw yi ñoo lay weddi magum jëm dañ naan la waxoo dëgg xam nga li gën ci nit ki mooy nit ki xamle boppam Mouhamad Ibn Abdul Wahab bi ñu ne ay téere loo xam ne jege na euh, à jege na vingt et quelques téere mhm. kitaabu tawxid ci la salaasatul usul ci la usulu salaasa ci la almasailul jaahiliya ci la euh, alqawaidul arbaa ci la mu nekk ay téere yu tasaaru tafsir suratul naas ci la euh, suratul fatiha téere yu bëri bëri bind na ko léegi nit ki da ngay dem xool li mu bind boo jàngee li mu bind di nga xam waa ji ban genre nit kashfu shubuhaat ak yeneen ak yeneen kon moom daa jàngul ay téeram benn beneen bi nit ki doo sukkandiku ci ab noonam mhm. pour pour pour pour pour mën a wax ci moom waaye da ngay dem gëstu ko sa bopp euh, loolu bokk na ci li xam ne ay noonu lislaam tasaare nañ ko parce que Muhammad mhm. ibn Wahhab njàngam la njàngaleem nag ñoo xam ne xëy na bu njàngaleem siiwee wala tasaaree ak li ñuy jàngale amaana dañuy ñàkk seen i intérêt wala seen i masla léegi ku mel noonu foog nga diaboliser ko pour nga tranquille da koy diaboliser pour mën Mm. loolu fo euh, benn méthode la boo xam ni français bi français yi daan nañ ko jëfandikoo jamonoy colonisation ñoom fu ñu nekkoon bu accès li ñu njëkk def mooy diaboliser anglais yi parce que anglais yi ñu nekkoon seen rival seen rival yi gënoon a yi euh, sonal mm-hmm. France parce que ni ñu ko xamee mm-hmm. Saint-Louis fii ci loxo anglais yi la nekkoon euh, Gorée gi ci loxo anglais nekkoon après négociation lañ leen ko jox loolu lépp am na histoire am na ko war alaakulli Mouhamad Ibn Abdel Wahab personnage bu am la xam nañ kañ la juddu muy 1703 xam nañ kañ la faatu 1791. mi mhm. ngi juddoo Uyayna faatoo Diraya. Mhm. mu nekk xam ni histoire am ñëpp xam nañ dafa ñëw di wootee diine parce que jamono Màkka parce que ñu war li ñu jàpp mooy Màkka dafa am ba yonent bi jógee ba léegi Màkka ni mu mës a mel la mel mhm. mais am na jamono yu fi jaar bu demee ni Mouhamad bun Sharif nekkoon buur Màkka dafa amoon ay ay ay mbir yu débordé ci wàllu diine ay xam ne yu kenn ku nekk nekk ci lu la comme li ñuy dal fii comme li ñuy dal fii mm. ba nga xam ne tey loo wax ñu ne bàyyi lépp war naa mën a nekk maanaam diine daal kenn ku nekk loo sentir war naa mën a nekk diine alors que diine du loo sentir li yàlla wax la ak yeneen yi mu nekk mu naq dañ koy parce que diine dafa tënku dafa am foo foofu lañ ko war a jëlee mais du lu la sentir rek lu la nekk diine du mm. moom mu ñëw pour redresser waat affaire am buur bu baax bu ñuy wax al imam koo xam ne dafa jiite ne ko nag dinaa taxaw ànd ak yow ñu xeex jihaad ba dellusiwaat l'islam authentique fii ci biir Màkka ak ci biir réew mi sax la presqu'île arabique sax nag ñu xeex am ay dëkk yoo dañ dañu taa gañe am yoo xam dañu leen gañe ba taxawal l'islam authentique noonu la amee mhm. kon wax ni mhm. Mouhamed Abdallah mosul dem Angleterre benn jamono ñoom bi ñuy jamono bi nga xamee ne moom mi ngi dund anglais yi mosuñu teg seen tànk biir biir fa mu nekk moom mhm. wala mu amuñu relation wala wax parce que moom du woon buur benn buur la woon du sax buur benn borom xam-xam la boo xam ni buur a ko jël ñu ànd ñoom ñaar di restauré waa li nga xam ne mooy l'islam authentique hmm. voilà waaw Mohamed Ibn Wahab amul hmm. problème mu jigéen hmm. ñi am problème mu jigéen xam nañ ne euh, kon kon euh, Oustaz Oumar suñu demaatee ci côté boobu dañu gis ne souvent dañuy jàpp ne xale yi dañoo yittewoo li nga xam ne moom moo di borom euh, xam-xam yi yi waaw nga bàyyi boroom xam-xam ñi nga xamante ne mooy seen mag ñu baax ñu comme ni ñu koy waxee borom xam-xam yi arab yi ñoom dañoo am lu suñ mag ñi amul wala mag ñi dañoo taalifu lépp. te ah. ñoom nee mag ñi taalif na lépp donc lépp doy na. balaa ma ciy ñëw sax danaa wax ni li may bëgg a leeral rek. mooy Mamadou Diop xam saa boo gisee ñu tuumaal ko extérieur la. mais moom moom dafa ko. defee lu aju ci wàllu euh, li nga xam ne mooy Euh, borom xam-xamu arab yi ndax complexe la ñu koy askanale ahlu sunna naan ñoom dañu am complexe ci borom xam arab yi rek la ñuy dellu hmm. non loolu dañ koo doon fii ci magi réew mi ñoom ñoo ñu ko jàngal ñoom ñoo hmm. dem ba Irak indi ñu tarixa si Abdul Xaadir Jaylaani jox ñu ko dem ba Faas indi ñu tarixa naar bu xonk ci Abul Abbas Ahmad Tijaani indi ñu magi réew mi ñoo ñoo xàll yoon woowu hmm. te magi réew mi fii gisuma ci ku sukkul ci kanamu naar ñoom ñëpp dem nañ gànnaar jàng kon ci ñoom lañ ko doon rek ñoom ñoo ko jàngale ci réew mi ñoom ñoo jiitu ci indi ñu naar ak wan ñu naar bañ nañ ko ba fii làkku arab arab yaaram lañ ko doon wax fonk naar ba arab làkku arab làkku yaaram lañ ko doon wax fii Sénégal ñaata ñi dafi ñëw nekk araab rek sol yëre yëre bu rëy rek woote woon a sërif la gars yi dajale la jox la nga dem ci ab dëkk ñu lay reyal ngay lekk di naan di la defal njarum soow ba keroog ngay ñibbi fekk boo moytul ab wuyu loolu fii ci réew mi lañ ko fekk léegi nag ñun Atoumane waxoon na ko sànq borom xam-xam yëpp la ñuy dellu Buxaari bi ñuy waxtaan yi Buxaari du naar Buxaari du naar xuraasaan la jóge xuraasaan tey mi ngi a diggante Afghanistan ak ak ak ak ak ak Russie. Russie tey fa la nekk. nekk dëkk boo xam ne ñëpp xam nañ mën nga ko cartographier tey boo duggoon ci boo duggoon ci Google Maps. Bukhari Bukhari du du na yeneen borom xam yu bëri te yoo xam ne ci lislaam boo dooleeg ñoom Tirmizi ñu baara ñu bëri ñoo xam ne duñ ay borom xam-xamu duñ ay arab mais ay nit ñu ñuul la ak fii ci réew bi ñoo xam ni duñ ay xaar a Amar Fall ñëpp dañuy dellu ci parce que lan la xam-xam la jàngale na sos ay daara leneen ak leneen mhm. kon mbir mi mooy tasaare xam-xam bu wér ku ko tasaare ku nekk référence la mhm. noonu nga ko waxee dog na dégg naa docteur Raghibou Sardiani di wax ne histoire u l'islam yëpp boo dee xool mhm. naar yi matuñu ci daanaka vingt pour cent ajam yi ñoo ko bind à quatre vingt pour cent docteur Raghibou Sardiani euh, ci côté boobu euh, euh, oustaz Atou dafa mel ne li ñuy waxtu yi mi ngi ñuy bëgg a dab lan nga jàppe ne moom moo poussé waa ji à ce que muy Ahmad Khalifa Niass à ce que souvent muy sotti yu tàng ci kaw ki nga xamante ne moo di euh, salafiya moom moo di salafisme wala docteur euh, Ahmad Lo c'est-à-dire ban mawqif la ndax dafa nekk loo xamante ne comme ni ko Cheikh Oumar waxee doctorat bu mu bëggaat la wala parce que bu dee doctorat boobu moom ci côté diine yaakaar naa kenn xamewu ko ñu koy génne ci en tout cas essence yu toll noonu lan moo waral ban taxawaay la euh, moo ko poussé a ce que muy acharné wu souvent suñ ko mënee tuddee acharnement dama ciy dellusiwaat mais Ousmane wax tontu na mhm. mooy ki nga xamante ni dafa tabax benn mamlaka ci kaw ndoddu nit ñi. te tabax ko ci imposture tabax ko ci ay fen tabax ko ci nax nit ñi tabax ko ci wan leen image boo xamante ni bokkul ak fa mu leen jëmee. caricaturé li nga xamante ni mooy dëkk jël ay neen dal di koy suuf ba mu rafet teg ko ci kanamu nit ñi ba fexe ba tabax ci mamlakaam toog ci kawam kooku bu gisee njàngale mu mel ni njàngale docteur Mouhamed Ahmed Lo pour mu tranquille faaw mu caricaturé. faaw mu acharné wu ci kawam pour mën a tranquille parce que lële menace la ci moom. guerre de positionnement a daal guerre de positionnement la. Hmm. la nga xamante ni moo leen daloon ci ibnu maa yaabal jageen dinaa ci ñëw. loolu rek moo nga xam moo répété wu waat tey moo tax at-taarixu yu'iidu nafsa ci plateau na ci ay kàcc yoo xamante ni yàgg nañ ko kàcc ko ci euh, Cheikh Mouhamadul Qadir euh, wuldu Sidi Abdullah ibnu Mayaaba al-Jagani. Hmm. d'abord foofu li ñu fi njëkk a leeral mooy. ibnu Mayaaba al-Jagani benn bi ma gis ñu jël référence des fois ci euh, téere Cheikh Ahmad Bamba yi. waaw mu ngi waaw al-Jagani waaye. waaw maanaam xabila la boo xamante ni. al-Jagani ña fa dëkk yëpp noonu lañ leen daan del askanale. Mhm. ca Mauritanie Jagani Chankiri. waay Chankiri hmm. mhm. moom borom xam-xam la woon boo xamante ni euh, baayam marja la woon ci masab imam Malik. Mhm. tomb yi mag ñi daan jëlee gànnaar. ci ci muxtasaru xalil muxtasaru cheikh xalil la wala sani mag ñi am na tomb yu ñu ko daan jàngaleen di ko di ko tomb ci suuf bu ñu la koy jàngal rawatina boo demee ci buntum njaay ak miras tomb yooyu bàyyam moo ko daan joxe mm-hmm. Sidi Ahmad wulda Ahmad eh, Sidi Abdullahi wulda Ahmad moom moo jur Cheikh Mouhamadul Qadir bi nga xamante ni moo taalif téere boobu bi fii indi woon coow la ca jamonoy bàyyam mm-hmm. muy mustahal xaarifil jaani mm-hmm. fii raddi zalaqaati tijaani al jaani noonu la tudde bi moom Mouhamadul Qadir ah, euh, bi ci noppee ñu baree bari ci kubara tariqa tijaniya def nañ ci ay tontu ñii dañoo bind ay abiyaat euh, tontu ñii bind bàyyam nag moo ci bindoo téere daal di tontu jàpp ni lekkee wax euh, wérut daal di indi ay tontoom teg dugg ñu ci dimension dimension bi lan moo wér ak lan moo wérut ndax loolu tax ñu jóg hmm. li ñu tax a mooy mooy ustuura yiñ ci ràbb hmm. wax ni gannaaw ba téere ba pare dañ ko tahdid ni ko téere bi bala nga kaa jàng na nga fay say bor ndax boo ko jàngee da ngay dee dañoo gis ni Mouhamadul Qadir keroog ba mu jàngee téere ba benn sahmun ghaybi maanaam fett benn benn fett invisible mhm. benn flèche invisible moo jógee fële ca àll ba daal di koy jam ci dënn bi ba génn mu daal di faatu dara wér ci ay légende la yoo xamante ni xuraafaat dara wér ci abaqil dara ba dara booloo jeex wér ci Mouhamadul Qadir d'abord dañuy wax ni téere ba ba ko bàyyam tontu ëpp na téeméeri at téere bi ci boppam biñ ko bindee hmm. mustahal xaarif amagul ci kaw suuf téeméeri at hmm. mi ngi wax naan ca Arabie Saoudite Mouhamadul Qadir ba muy dem boobu tawxiid mamlaka amagul boobu saltanatu najd la fa fekk hmm. ay 1924 23 côté yooyu bi muy dem bi muy dem jamono yooyu Makka boobu saltanatu najd boo fa am waaye tawxiidul mamlaka amagul stable agul comme nii mu mel nii tey yaa ngi dégg ndax bi nga xamante ni colon yi dugg nañ Mauritanie moom dafa bokkoon ci ñu doon opposé colon yi par les armes dafa jihaat ak colon yi biñ demee nag ba nga xamante ni na attanatuñu riposte bi mayeetu leen ko moom dafa daal di hijra dem bu maghribul sax dem dem dem dem Maroc hmm. Maroc boobu toog na fa lu yàgg Faas toog na fa lu yàgg jóge fa jaxasoog maanaam ay muqaddam ci tariqa tijaniya doog faa jóge nag jàll ba Ardul Hijaz. Ardul Hijaz. Hmm. bi mu jàllee Ardul Hijaz nag ginnaaw ba ci la taalif téere yooyu nga xamante ni taalif na ko. kooku ci wàllu aqida ñun dafa juyoo ak ñun. da hmm. ngay hmm. que moom ashari boo xoolee sax téere bi mu tuddee istixaalatul maiyati bi zat boobu da doo xam as ashari la wala maturidi sax la. en tout moom la gën a jege. ndax bokk naa moom sax li nga xamante ni mooy aqida ashariya kon bu koy jël naan seen kilifa ga. li muy tegtale mooy li Omar wax moom mooy xamul li daawa salafiyya la xamul mooy lan. Hmm. téere bii di taqdiisul taqdiisul ashxaas jàng ko liiru ko. Hmm. liiru ci ñaari xët yu mag. fu hmm. dégg ni mu ci wax xam ni liiru. dañu koy dee dégg na ay nit di wax. ñëpp a ngi diaboliser ñëpp a ngi wax. ku bëgg buzz da ngay dal ci taqdiis saaga ko saaga ko ko taalif. léegi loolu nekk benn phénomène mu dal di ciy tàbbi rek. waaye. waaw li. li nga xamante ni moo jaaxal ñëpp. mooy journaliste yi nga xamante ni. maanaam euh, dafa am lu fi xewoon bu yàggul muy euh, Lamine sàll jamono yi nga xamante ni toog na ci biir ay wax mu am ay kàddu yu mu jibal am benn communauté bu jóg ni ñoom lay wax daf leen a diaboliser daf leen a def nangam waa plateau bi nga xamante ni ñooy waa rajo bi ci seen bopp waa Walfadjri ñoom def nañ ay excuse wax ni da leen a rëcc ba loolu jàll. loolu Lamine Sall wax mu jàll mu naqari benn communauté. ba ñu jóg di porte plainte ñoom def nañ directement ay excuse waaye saaga gii mu saaga def injure publique te ñoom ñoo ko fekk indi seen disponibilité yëpp tegal ko ci kanamam di ko filmer jox ko micro muy wax muy saaga docteur Ahmed Lo naan kooku mooy Abu Iblis hmm. ñoom ndax toog nañ ci télé def jéggalu benn yoon hmm. ndax maanaam regretté nañ maanaam kàddu yooyu propos yooyu jógee ci eh, Ahmed Khalifa Niass jàll ci deru docteur ndax def na def nañ ci benn regret wala ñu wane lenn luy wane ñu ngi koy tuub ñu ngi koy jéggalu hmm. wala léegi injure publique dafa nekkatul délit wala boog dafa nekk délit ci boo ko defee keneen ñu ñu ñu sanctionné la boo ko defee mu jëm ci beneen communauté ñu bàyyi la noonu. Mhm. ndax gis nañ fii ku ñuy wax Mame Goor jamono yi ci ginnaaw def na benn waxtaan boo xamante ni. Mhm. wax na ba jeexal tudd ci turu kenn ci ay nit. tudd ci turu kuréel te pourtant am na kuréel bu jóg ni ñoom lay waxal ba ñu porté ko plainte. Mhm. ba jël si ba justice ñëw jël si ko. muy am retour au parquet deux fois. six jour mu def ko ci seen i loxo ñu doog koo bàyyi mu dem sous contrôle judiciaire. c'est ça te kii moom dafa tudd turu docteur Ahmed Lo ni moom mooy Abu Iblis. lépp lu muy wax ay fen la ko defee ak wut xaalis. te loolu du délit kooku moom am na droit di dox librement te kenn du ko joxoñ baaraam. waa télé ba waa rajo bi muy waawal fat jëri gii nga xamante ni ñoo ñoo def loolu taxawuñ benn yoon ni ñu ngi koy excuser wala ñu ngi koy wala propos def leen mhm. loolu lañ xamul lu mu tudd tubaarkàlla waawal fat jëri ñu ngi koy dégg xam naa ne ñoom tamit aussi dinañ excuser wu incha allah euh, euh, Omar euh, Oustaz Omar bu ñu tey ñoo ngi bëgg àgg sax ci fi nga xamante ne mooy cëppaandaw gi mhm. daanaka sax mën nañu wax ne dañuy tàggoo lan mooy sa kàddu gu mujj waaw sama kàddu gu mujj li wax mooy suñu plateau journaliste yi mhm. nañ élever tuuti am benn grandeur élever tuuti seen niveau bu ñu invité ñu invité kuy wax xam-xam comme li ngay invité te tax Sénégal jëm kanam day defar société bi hmm. day yokk nit ñi seen wàllu xam-xam daf leen di yokk niveau intellectuel daf leen di yokk religieusement daf leen di yokk culturellement daf leen di yokk environnementalement daf leen di yokk hmm. daf leen di yokk ci plan yëpp hmm. mais toog wax yooyu waaye boo xam ne moom dafa dafa yor ay projet bu koo doxal te ci kaw ay saaga la koy doxalee kaw ñàkk kersa ak ak xamati ñàkk mm. yar ci la koy jaarale mu ci xam-xam man jàpp naa ne fajir gi ba ma koy xam ba fi Sidi di nekk sax yaakaar naa bëriwu fi tànk wala man musuma ko seetaan ba Sidi nekkee fii ba jógee fi musuma ko seetaan wal fajir man mm-hmm. ci plateau mook Sidi ñu bokk plateau télé wala ñu invité ko fii xanaa Sidi dafay jógee yàlla yërëm mm-hmm. moom moom léegi mu am fi mm-hmm. léegi nag lii bu jógul buñ ci jógul leneen lay jur ah. parce que invité nit amul dara lu muy wax télé bi télé bi yëguñu ne ba léegi wala journaliste yi mu toogal ba léegi yëguñu ne ni mais lii injure publique la diffamation la lynchage médiatique la acharnement contre une communauté contre une personne la une personne digne c'est-à-dire ba léegi ñoom yëguñu ne li xew nii c'est un danger quoi mhm. c'est pour ñoom c'est tout à fait normal c'est dans le cadre légal mhm. alors que nous sommes dans un pays de droit mhm. am yoo xam dafa war a jeex donc euh, di tàllal nit micro mu taxaw di acharné wu contre une communauté contre une personne loolu moo jaaduwul Mm. débat scientifique débat contradictoire kooku kenn mënu ko fi jëlee mm-hmm. fii lañ ko fekk kon dox ci loolu dafa nekk loo xam ne lu koo xam ne nag wax dëgg yàlla doo référence ci dara mm-hmm. yow saxaaba muccul ci yow yonente tarixa mm-hmm. bi nga bokk sax xalifa ba fa nekk muccul ci yow mais nit ku mel noonu kooku boo koy tàllal micro da bëgg réew mi tàkk nit euh, dañ koy tàllal ku nite mais dof kenn du ko jox micro éthique ak déontologie comme ni nga ko waxee bukki bu yebee euh, waxamba waxambaane ci doxin bala comme ni ñu ko waxee euh, tontuwaale loolu ak euh, su fekkente ne xëy na moom ni ñuy doxee la moo tax ñu yeb leen ba di leen waxee noonu ndax loolu moom moo am walla xëy na peut-être dañ leen a yab rek di acharné wu ci seen kaw. waaw foofu li ñu ciy tontu rek mooy. ak sa kàddu gu mujj waaw. Hmm. maanaam ahlu sunnati wal jamaa. Hmm. dafa am aw doxiin woo xam ni moom la doxee doxiin woowu nag. Hmm. lu ci pas-pas rek chaque jour ñu fàttali ko shabab yi hmm. ni ñu gënee ñëpp pas-pas noonu lañu ñu gënee ñëpp ay ibaadaat waaye noonu la ñu gënee ñëpp muamala maanaam wàllu jikko wallu jëflante waaye nag baadoola booy jëflanteeg moom ci di ko dumóoyu ak di tànqamlu yamuy wax jëme ko ci sa kaw te nga di ko tànqamlu ngir di am looy bañ day defe ni teg la ay tànk moo jot hmm. bu boobaa nag ña ca nite ca ñoom dañuy exploité ña ca saay-saay ngir ñu defal leen sale besogne boobu nga xamante ni ñoom xaw nañ koo jom ngir seenu nit li borom bi subhanahu wa taala di wax ni wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha li yamkuru fiha noonu la ñu def moom nag comme dafa bokk ci akabira mujrimiha ci qarya la hada al watan moom la exploité chaque jour bu aw nit bëggee caricaturer l'islam di dàkk chahru ramadan al mubarak nga xam ni loolu sacrilège la muy weer wi dafa tedd ñu dàkk weer woo wi nga xamante ni seetlu li ma la wax juróom benn weer wala juróom-ñaari weeru koor a ngi nii bu jàll boo xamante ni fu mu ñëwee dinañ ko indi ci plateau mu wax fa wàll sexualité perversité jéem a pervertir jeunes yi jaare ko ci turu l'islam moo pervers d'une manière indirecte waaye li ñu koy xamal mooy daawa salafiya du benn un vieux imposteur pervers moo koy freiné Mhm. day dem incha allah. Mhm. jërëjëf euh, Oustaz Atoumane mbokk yi àndoon ak euh, seen jotaay spécial ci Walfadjri mu nekkoon benn édition spéciale juste pour def ay réaction xëy na lii duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li parce que grand format boobu daanaka demoon na ci deux heures de temps et quelques. Euh, mais euh, li nga xamante ne moom moo di cinquante cinq minutes yi incha allah dina doy ñu wax ci lañu bëgg wax mais de toutes les façons di ko fa nekkoon rek jotaay bu nga xamante ne pour delloo kem li nga xamante ne moom lañ gisoon incha allah te dinañ dikkat ak yéen incha allah xëy na ci yeneen jataay su ko laajee euh, ñoo ngi leen di jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membaram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu